c'est-à-dire loolu peut-être dama koy lancer appel les artisans bu ñu kenn gëmloo ni yéen waru leen def politique toggee leen ne leen. non non non on n'a pas dit ça. non attends attends ma ñëw rek attends ma ñëw euh, man dama jàpp ni tey. Euh, li Pastef def dafa nekk lu rëy dafa nekk gulet. yéen da ngeen ci gis seen bopp. bu baax a baax a baax artisan wu Sénégal yëpp ñoo ci gis seen bopp gis nga jéem dinaa la wax dara tey. mais mun na mun na mun na lu ëpp ci artisan yi bokk. mu daanelee nga ñëw. gis nga bi ñu lancé bi ñu. waaw da nga naan ñëpp la artisan mais bu mouvement boo solee Lacoste Monap sol casquette dem ci artisans yi di waxtaan ak ñoom ci village artisanal yeeg yenn regroupement yi nga xamante ni xëy na bëri na ay artisans parce que artisans yi dañu yàgg am ay jafe-jafe demal fii ci. ah non non kon ne li nga wax solee casquette xaw ma la. foofu laay demal fii ah, ci ci ci ci euh, aéroport bi xool la fa nekk ci ay artisans jafe-jafe conditions yi ñuy dundee pas toilette. amul électricité xëj na. aéroport mais ci yoonu aéroport bi ci rebooru mur bi. ña fa nekk installé wu fa. am ay jafe-jafe ci ay infrastructure de soutien mais même bu dee waruñu fa nekk. état war naa fexe ba jàppale leen ñu am fu baax. non non non non cest xaaral ma daaneel xaaral ma daaneel pour vous dire que li may wax sànq rek ni lu ëpp ci artisan yi ay patriote lañ da ngay romb nit mu nekk artisan xëj na yow moom xam na ni li nga sol mun na koo lii gis ci mouvement national des artisans patriotes da nga koy romb mu wala man artisan laa lii laay liggéey lii lan la mouvement la waaw ci laa bokk boole ma ci donc pour vous dire que lu ëpp ci artisan yi pour ne pas dire tous les artisans lu ëpp ci artisan yi gis nañ seen bopp ci projet